jërë ngeen jëf suñu mbokk internet iGFM isfm.sn sn ngi leen di jaajeufal ci taamu bi ngeen ñu taamu say suné di and ak ñun tay nak dañu fi dalalati ben bu mag ndaanaan bo xamni ni ko fo deg turam rek sa xel day dem ci lamb mu def ci lamb lu reuy lo xamni ni ken ni kenn mënu ko naatable barki dem mu def jaloro ju reuy vraiment ci digënté ak kewel ah dimanche ji ñu genn muy Tidiane fay ñu gën ko xam ci le professeur de Lamsar Tidiane ñoo ngi lay nuyu wax ñu lay ziar bu baax gannaaw bañ sant yàlla junni si moom sant suñu ñaari waajur sant waa ak lamb yëpp di sant koñ ma jógee di teewal lamsaar yëpp cité naa la poste caare caare géej yëpp wax ñu ziar bu baax fay naa sim naa noonu gid maa kontaan a a baax ah, ah, waa GFM yëpp bi waa rajo bi ma leen ziar bu baax dëgg Tidiane bung lebay la bàyyee nga nuyo ba nopi kan moy tijan fay xam kan nga Tidiane fay nak ben boy la bu judo grave hmm magge dekk bu di Djilor yaroo Lamsaar hmm Tidiane kañ la dugg ci lamb ak lan moko duggal ci lamb vers 2005 2006 yoy non dal japp 2004 loolu lañ dugg ci lamb ci lañ bëri suñu përi përi combat mhm waaw mais nag benn boy la boo xam te ne bi may jógee village di ñëw dama doon jàng si métier. Mhm. so boobu bàyyi naa école. Mhm. ñu andi ma pour may pour ma jàng métier. Mhm. mais virus bi nag fii la ma duggee. waaw ci mbapat Max Mbargane la. maanaam da nga doon jàng métier di bëre mbabat. waaw dañ doon ñëw xam nga comme comme Max Mbargane da doon def sa chaque jeudi vendredi ak samedi mu tëgg mbapat. bu saison tëjoon euh, man tam ma doon jàngale métier. comme Lamsar lañ dëkk. Mm-hmm. yooyu amee tamit ñuy dem foofu noonu di ko jëlali saisi. Mm-hmm. buñ ñëwee vérité fa la ñu duggee suñu bëri avant ñoom bëri mag yi ñëw ñun xale ñu ñuy bëri suñu biir ba pare. Mm-hmm. te bu dul loolu sax ñun ay doomu séeréer lañ. dëkk bañ dëkk suñ cosaan daanaka làmb la ak ak yeneen bagage daal. d'accord léegi Tidiane ban kañ la bëree maanaam premier combat bi njëkk. ci mbapat kagn la ak kan la ko dajal 2005 la may borom ak Mondo Mbay Mondo Mbay Mondo Mbay ñu ngi koy wax ëmës bobu lañu jël wax premier ëmës numéro 2 ndeysaan waaw ñu ngi ko bëré won estar Pikine mhm. Mhm. nga daan ko ma daan mu daan ma mu daan la bobu dama boobu dama lëmëm mbapat yi mhm. parce bobu boobu combat pat mo xew daanaka bi mbapat yi max mbar yaani daanaka jeexee parce bobu non mbapat yaquna lay ñu ko ma xewal combat mbapat ku mel ni Idi Gueye ñu koy wax suñu mourou Niane numéro 2 mo ñu doon teugal lu bari waaw ma koy nuyu de passage moom mi ngi Espagne. ndeysaan koy jaare bu baax. ma doon tëggal daanaka ma bëri fi lu mét huit combat ba neuf. Mhm. benn laa ci am boo xam te ne ñuul naa ko waaye dese ma ko daan. Mhm. comme maama Fatick. ma bëri ak daan yoo xam te ne boobu ñoom bëri nañu ay stade sax ñu ne ma nag il est temps pour nga bëri ji stade. Mhm. ci lañ ma nag boole ak mbonn baay waaye mbonn baay. li war a andi suñu combat maag moom moom mooy dañ doon bëri mboqatu max bi mais comme moom nit mbëru wet la. te man dama bëgg wat mhm. suñu contacté suñu contact contact bu neex te moom mbeur wet la suma ma damay langam suñu dañuy jargandul mhm. bu ko defee bu kenn daalé mo a da nga gis max na ne max na ne jug leen dafa neex il faut ngeen dolé wat parce que amateurs yi ñoko laaj laaj noonu taxoon après biñu ñu fofu nak comme mom bari na combat breti non mhm. lañ def suñu mourou ñaar tekk ko estat boobu suñu mourou ñaar doon ñëw ci comme waxatu maxi suñu mourou ñaar ñew tekk ko estat yalla dogal mu daal mais Tidiane boobu yang ekiri écrit caaray géej lam lamsaar amagul. donc lam lamsaar amagul. boobu lamsaar amagul boobu ñu ngi caaray. ñu ngi caaray nekk suñu kanamu mag. ku ni Baam Ndiol Issa Pouye Khadim Ndiaye numéro un numéro deux. ay kii nii Ousmane Diop. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. ñuy ak ndam xuma. ko la Tidiane ñaata combat ci arène bi actuellement nii moom xam naa ne sama moto sàggantul ma hmm. dugg 30 nag. dugg nga ci 30. Ah, Tidiane Tidiane Faye bu def lu ne ci làmb Tidiane nekkoon ci yoon boo xam ni Tidiane rek lañ ciy teg mooy ndaanaan Tijan ngi jeki, Tidiane jékki-jékki mel ni lu dugg ci saako yi lan moo ko waral. loolu mbiru suñu borom la rek xam nga mm-hmm. di wax te baax loolu moo ci nekk te àdduna noonu la demee parce que yàlla du maye day dénkaane bu la bu la joxee da ngay gëm dalaa jox dalaa dénk bu xëyee mën naa xëy si watal nangu ko te ñun ay jullit lañ ñu doon daan muy neex wax dëgg yàlla yàlla dëkkul suñ kër te yàlla nekku fi pour kenn dëgg la looloo tax te ñooñu ñoonu mënoon daan defuñ yàlla li tax mu leen doon jox defet Mm-hmm. kon looloo tax buñ bu ñu dool demee ba si yàgg affaire bi xaw a métti si ñun. Mm-hmm. te méttiwul sax dañuy sant yàlla bu baax. Mm-hmm. Tidiane presque bëri na ci arène lu mat fukki combat ak nangam su ma juumul pour ginnaawam laal suuf problème la Tidiane daanaan bu nekk Tidiane daan na ko façon jël bu nekk Tidiane fay na ko ci arène bi Tidiane bi nga tollee ci tolof tolof yi nan nga ko dundee. waaw sant yàlla rek. metti woon na nag xam nga ak julit mm-hmm. julit day nangu gëm mm-hmm. day nangu dogal bari di gëm mm-hmm. li nga xam ne suñu bor moom lay def euh ne fukki ba mi ëpp na ko daanaka daanaka daanaka 7 ans la toog bari daanu ko te 7 ans yi noonu chaque chaque at dina bari lu ma 3 combat ma 4 kon boo calculer ëpp na loolu noonu moo tax bu ñëwee dama ko dundee rek bànneex ndax ay julit lañ mooy li ma wax sa njëlbeen ba rek yàlla dëkkul kër kenn day ñëw fi tay bu suba bu ñëw fee moom mooy comme ni mi défé né tay ji ni da ngay xey suba teel yalla dogal nga am dépense nga xëy suba teel yalla dogal nga am dépense war ko lu lijjanti ji. non la démé mhm. mais Tidiane Tidiane mbolo da ko don top buntu kër Tidiane boo fu dem da ngay fekk xalé yi tok mu fess del Tidiane dem na ba yenn moment yo xamni que pour mu gis ay nitu dembam sax day nek problème ci mom loolu nan nga ko dundee woon période sant sant yàlla rek xam nga lu tax mhm. moom mooy làmb moo demee noonu sport sax moo demee noonu mhm. euh, am na moment boo xam bu fa tollee ñëpp lay wuyu si mhm. boo boo sax di nga ne ay jinne sax ay malaka dañ lay ci wuyu si wax dëgg yàlla parce que loolu lu yàlla moo def si yow mi ngi mel ni mango boobu mocc ba pare sànni ko ci bes bees da ngay gis weñ dañ koy wër waaye bu ba wow. gis dara dëgg la tijaan fan la toll ci làmb fi ñu toll nii. waaw sant yàlla bu baax parce que mooy seet. dama toogee deux ans ma si sos sos daan ma. dem mhm. si boy see boy see daan ma. Mhm. Eh, ma toog am gàllankoor affaire yi xaw a métti si man ma toog deux ans bëriwu ma. ñaari mhm. at ñaari ñaari saison bëriwu ma. ma def relancement ak Junior yàlla may ma ndam ci ñëpp ne da koo for ñii ne daa jeexal ñii ne màgget na ndeysaan bi may jël kéwél ñëpp dañu ne lu tax mu koy jël parce que dafa jóge si ay defet waaye xam nga ne ko jóge si ay defet moo gën naqari bëri dëgg la parce que day bañ léegi nag daa am ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi doon yaakaar ci loolu noonu ñu ñëw jël ko def ci liñ ci def barki démb kon sant nañ yàlla bu baax fi ñu toll si làmb moom daanaka léegi nekkatu ci gan te daanaka liñ def si wax deug yalla tay ji mbeur mu ndaw mbeur mbeur mu mag buy lim. mu mhm. nexe neexee taxaw si lim. la mhm. mais ñu gis sa combat kewel kérok mu nek combat bu metti gis nañ ni bëri ngeen ngeen lu yag, hmm? ken mënul daan sa morom est-ce que xaaroon nga lolu ci combat bi. non méttiwul. Mhm. mais dama am mbetteel. parce que dama la bi moy sama 30e combat. musuma nil musuma nil damay daan bañu daan ba. sama victoire ñëpp sama defar fuuf kon bu ma ñëwee di bëre xale boo xam ne dañ ne xale la mo ëpp doole mu mhm. wérante ci bëri woon trop ñu ne ñu ne moo ko dàq xeex mhm. ñu ci bëri kuñ ci la tegal sa kër sax nga bañ mhm. combat bi ma gëm la ma gëm toog sama ruq ànd ak ñi ma war a ànd ak xam ne carrément ñi may bëril di contact ak ñoom ñoo ëpp doole kayil fuuf ñoo ko dàq bëri ñoo ko ëpp xam-xam lépp lu ñu wax si làmb ñoom ñoo ko ëpp ba pare may contact ak ñoom ñu dem ba ñëw ñu mënuñ maa daan te ñooñu yaroo samay tànk Mm-hmm. ñu daanaka lu ci bëri ñu xamee ko si man ma nekk si ñoom nekk si ñoom nekk si ñoom préparé ko affaire bi métti lool lool lool lool lool mm-hmm. day dem mujj gi da ngay sax ñu naan la lan la mm-hmm. parce que ni ma ko fonkee woon la parce que tey damay wax ne carrément nitu jom dafa am foo xam dafay toll boo xam ne bu fa bu fa làmb tollee yow yaa jël en charge bi sa bopp kenn ko jëlal sa bopp parce que lay xew sa géegoo yaa koy def waaw mais nag làmb ñaar mu koy def. Mm-hmm. da ngay bëgg sa morom bëgg. Mm-hmm. mais yàlla moom mooy dogal tamit lay am sa géew. Mm-hmm. mais tey jii bu nekkoon comme dañ ne moom mooy ndaw. moo dàq moo ëpp doole. moo dàq xeex. xeex ba demeewul ci benn yoon. dëgg la maa ngi jàkkaarloo kon bu doon dara gis ma taf fii taf fii taf kon la mu yaakaaroon ci xeex sax amut. biñ ne rënkum maa ak moom. amut fàq ko mu kaat appe. coow li xaw a bëri. la pare ci làmb ji moom nag jëretu benn émission ñëpp naan ko téyel sa bopp rek di jam góos pour mbañ a ñegsi mhm. waaye nag làmb wax dëgg yàlla ñaar moo koy def te mhm. ñun fi ñu toll si làmb mhm. wax dëgg yàlla tollatuñ foofu noonu te nag dama doon jël booy pour nattuwaat nattaat sama bopp comme gëj naa si làmb dëgg la waaye fi muy nag moom wax dëgg yàlla doy booy doy nañ daal doy nañ sëkk comme dañ jël jël dañ ñamal maay mag te kon dañuy ñëw ñëw ñëw di bëri seeg man nangu ñëw taxaw dëgg la dëgg la mais Tidiane ginnaaw ba nga génnee ci kewel ba noppi actuellement nag kan la Tidiane war dajal ci làmb waaw loolu xam nga ñun bëri na ñu ma war a bëri bëri na trop mais da ngay tudd tur dama la làmb toll xam nga dafa xam nga dafa bëri waaw li tax ma ne dafa bëri moom mooy Tidiane war na bëri guy gi Tidiane Faye guy gi ah loolu affiche gënu ko rëy de waaye Tidiane guy gi diis na ci yow de Tidiane Faye Zos loolu revanche loolu loolu loolu yenu la maanaam loolu Jos Tidiane Faye revanche su Jos Tidiane fay loolu moom yell na ci làmb te làmbi amateur lay doon ndeysaan su boobaa. xam nga loolu dafa neex. Mhm. waaw Tidiane Faye dara dàq ko. Mm, parce que nag seen premier compagne ñëpp loolu lañ defoon favori. waaw xam lu waral loolu. nga ñëw ndeysaan. Mhm. dynamique victoire yi ma amoon. dëgg la. loolu la tolloon. Mhm. parce que période boobu Tidiane kenn attanu la ci làmb. waaw mais làmb nag noonu la. làmb chaque jour dañuy wax ne reeru ñàmbi la. la reeru ñàmbi boobu noonu ñuy wax. Mm-hmm. moo nekk dëgg fu muy fa muy. Mm-hmm. fa demee doo ko xam. dëgg la waaw. Mm-hmm. léegi Zoss mu ngi lay seetaan lan nga koy yóbbante sax. duñ ko yóbbante dara suñu grand la. duñ lu dul lu dul dox suñu combat moom moo gën a bëgg combat bi. barki démb dama ko seeti këram mu wax ci yow wax ju rafet nee na ndam yi mu mës a am ci àdduna bi mu am ci yow ko ko gënal. waaw xam nga lu tax loolu noonu. dafa bëri koo xam te ne tey jii dafa gëj toog lu yàgg daanoo. ndeysaan. ñëpp joxoon ma favori. dëgg la mu ñëw def li mu def wane fu laak fayda yàlla may ko sama mhm. ko dañ koy sant bu baax. Mhm. instant yi pare nga pour bëre Zoss. non ñun pare na ni avance nii bu ñu ma joxoon avance. Mhm. suba Zoss Zoss xeex bi bënn na de. non non ah dara nag. Tidiane Zoss Zoss xeex xam bënn na xam nga ne xam nga ne xam nga ne xam nga ne loolu wax ju yàqu la la. Ah. Zoss yaa ngi dégg Tidiane Faye nee na pare na pour yow <laughs> kon nag promoteur yi ñoo ci des ah. tijan fay Jos Tidiane fay guuy gi tamit ah lambi amatel wala guuy gi day dis ci yow <laughs> dugul kenn du ñun ah bon kenn bo set tijan bu mu commencé beureul amul kenn ko beureul ni tolo problème ndeysaan wa loolu mom deug lay ndeysaan moy loolu moom moy problème wa Tidiane sa jël ba sa jël ba nga danon Jaguar doonu ci dikatal touti parce que loolu jaaxal na nit ñi ba léegi <laughs> xam nga jël boobu nonu daanaka bi may dugg si kalaaf boobu nonu ndeysaan mer lañ ko duggé parce que dama fekk ma bëri ay spécial ñàkk ko. incha te ñàkk bi tegul si yoon. Gaston tëgg ay gala. mag si mhm. taxawal leen dugal si suñu mbër yi nga xam ne ñoo nekkoon si koñ ba. incha nekkoon si équipe ba. Mhm. léegi nag moom buggul ñu saison bi bi ñëpp am combat kenn si leader yi yi fa nekk. Mhm. kenn bañ am combat day bëgg ñëpp am combat. pour préparation bi neex. dëgg la. loolu mooy neexal préparation. ngeen mën ñu sot voilà. ku nekk da ngay am sa doole boo xam te ne yaa koy may sa parce que yéenay mayante. moo tax mu jël ma ne ma da bokk ma ne ko père ki nga moom mooy Ousmane Toucouleur maa ngi koy nuyu. ndeysaan ndeysaan barki démb rek ñu koy ñu koy maa ngi koy dégganteeg moom. ndeysaan waaye sama daanaan la woon xar bi yónnee ma ko nag ndaw xool nga ma ko. <laughs> ndeysaan Ousmane Toucouleur moom <laughs> ne ci làmb. waaye làmb dafa rafle ay mbër yu mel noonu. waaw ba pare cosaan lu andi. bu dugg see nga xam ni kii tukulóor xalpulaar la dafa doon andi cosaan parce que da ngay gis ngemb la nga ne kii. wallaay ndeysaan. bu wóorul si falaay bale bu la neexee nga jàpp wallaay wallaay ndeysaan. waaw loolu wala ci mën a bëre. bala ci mën a bëri wallaay ba pare ba pare yoroon taay boo xam ne ko suñu taay bi wallaay guddul woon rëyul danaan jaaxal gars yi wallaay dëgg la Ousmane Toucouleur ndeysaan du moom kon mu ngi koy nuyu passage <laughs> ah, ah, ah, ndeysaan léegi nag Tidiane bu loolu weesoo ñu desandi ci écurie Lansar mhm. ah écrit bi bu njëkk bu fu musaan ñëw ndaysaan da daan fess del booba ñom fëgale ñi ngi fa ah ñom uh, Matar gay la wala Matar gay super étoile super étoile nees pakala ndaysaan zazu ñun gaay yëpp ñi fa ndaysaan mhm. tay bo fa ñëwee presque ay xalé rek nga fay gis loolu lan lay def ci lan lay def Tidiane non fa des non loolu du def dara hmm. li li li am ci écrit mo fa am rek ndeysaan am na bu njëkk làmb ni mu booy seet ni mu mm-hmm. doxee woon mm-hmm. jamonoy 2007 2008 2009 boobu làmb njarndéem la wallaay dëgg la sponsor yaa ngi daw jinaa ne mm-hmm. làmb foo ko tëgg day fees dal sponsor yi wuy si la promoteur da cee gis boppam mbër ma da cee gis boppam amateur bi gis sa boppam dëgg supporter dañ ci gis seen bopp waaye jamono ji léegi-léegi sponsor daw na sponsor daw na te la sponsor mooy leader làmb tay tey jii nii fu mu toll tey dama dama lay dem ba deug deug ñu naan view mhm. bu mu ñak bi mu amé rek mhm. amul lu ñu gënal wallahi deug parce que bëggo deug tay lamb mhm. sen wa ko duñ ko deug la te do si jëlé dara wallahi lool lo tax neexu deug la mais tiyan ñu gis ni bokku na ci li ray lamb yeen mbeuri ci ñeen bokku ndax da ngay wax jox leen ma diw ñu jox la diw nga dem serigne bi ni la tay da ngay daanu nga ñew téye sa bop waaw wala itam làmb ja des ñetti fan nga ñëw dugal sa certificat médical ndax jekkoo est loolu bokkul ci li tax euh, làmb dellu ginnaaw. loolu da ngay xool écurie ko am nag ñun nag loolu am suñu écurie nag. ah Tidiane. am suñu écurie de. Tidiane euh, daaw xaw ma daaw jéeg. am na mbërum lamsaar bu waroon bëri ak moroomam. kan la. ci veille ba laa dégg ñu ne làmb ja yàqu na parce que. tuddal ma tur bi. Ah, dama ko dégg rek ci amateur yi. tuddal ma tur bi tuddal ma tur bi wala amul bu amul rek ñu jàll. ci mhm. ko def. ah bon ngir loolu. dañu la doon télé boo xam te ne moo fa yor dix tonnes yoo xam te ne dañuy bëri grand combat. amul mhm. benn écrit. dëgg amul benn écrit boo xam te ne dafaa nekk ñu dañu fa dañoo am grand combat ñoo xam te ne dañuy bëri grand combat. Mhm. te ñun ëppoon nañ loolu noonu. dëgg la te bokkul ak ñi nga xamante ne bii génn nañ nekk ñooñu bu ñu nekkoon fi ba léegi kon dañuy wax. dëgg la ani fëgala moom sa doomu nday fëgala moom mu ngi États-Unis moom ah, moom dafa bàyyi làmb léegi de loolu mën na ko wóoruma wax ah làmb la bokk ci làmb la bokk fëgala fu ñu tuddee Tidiane fay tudd tudd fëgala <laughs> fëgala ñëwal ci làmb daf la soxla <laughs> ah <laughs> ndeysaan Tidiane kon du ñu def lu dul euh, di la bàyyi kàddu gu mujj gi waaw xanaa sant yàlla bu baax rek mm-hmm. santaat waa Tivaouane Lamsaar bu baax santaat post Thiaroye yi seetanaa la Samsung guy gi. hmm ciara geej ñep ñu leen sante bu baax combat bi dañu génn massivement. daj ay cion yu metti ndax ñu ñun. ñu gis dafa xew nak hmm ah, xamé nak seen mbër la waron def def nako hmm mo tax ñom bañu ñu ñibsi dañ doon sibiri di ñibsi. wallaay ndeysaan. kon sant nañ leen bu baax a baax baax baax baax a baax. sama tëkkat yi sama dijee mo mhm. dijee mo lay ndeysaan yëpp ma leen di bëggé ñun ñom ñëpp. am ñoo xam ne dañoo jàppoon si combat bu baax a baax a baax a baax a baax la. ku mel ni santel suma doom ndey. ndeysaan ku mel ni ki nga xam ne moom mooy Super Étoile. ku mel ni Pakala. ndeysaan sama gars yi nga xam ne ñoo nekk extérieur amul ñoom duudu. ndeysaan ñun ñu dañoo jàpp si combat bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. dëgg la ay aaya gay. président Cheikh Cheikh Cheikh Niang nag maa ngi ko sant bu baax. ndeysaan Max Mbargane moom bu ñu ko sant daanaka dañ koy ñaanal. wallaay ndeysaan. bu gën a yàgg suñu kanam moog Père Moussa. Kër mhm, ak Gana Ndongo. Mhm. di santaan nag suma rakk yi nga xam ne ñoo nekk si écrit ba. Mhm. yi nga xam ne ñoo nekk si euh, ku mel ni Quench. ku mel ni ki nga xam ne moom mooy Nekkurel. ndeysaan ku mel ni Balla Gaye ku mel ni ki nga xam ne bu laal As. Tigre 2 Tigre 1. xale yoo fa nekk ñëpp maanaam combat bi ñoom ñoo ko gënoon bëgg. dëgg la. ñoom Kalidou. dëgg la ku lim jum. ak sama gars yi nga xam ne tey ñoo nekkoon sama estafu. musique. Hmm. ndeysaan trio boobu nga xam ne ñetti tafaa yi. Hmm. waa Ndoye Tafa Diom. Hmm. Ah. ndeysaan. Tafa Thiam. Kalidou. dëgg la ñoom Babacar maanaam sama famille yëpp. maa ngi sant bu baax a baax baax di gërëm bi am na commencement amul aay amul. amul fu mu yem dëgg la yàlla dëgg la. di di di di nuyu nag suma grand Kéba Kanté. Mhm. donc combat bi da cee jàpp bu baax a baax a baax. ndeysaan yëkkati xaalis bëri may ma. dëgg la ma ne ko nag grand dinaa la fay sa bor. ndeysaan incha allah bi maa maa yow ñooy bokk combat boobu ngeen di waaj. ndeysaan incha allah bi jërëjëf. may jiw waa sama waa koñ waa koñ ba yëpp. waa dëkk ba maa leen ziare bu baax a baax. Mhm. di leen ñaanal jàmm di nuyu nag suma sëriñ. di ñaanal xalifa généraux yëpp yàlla yàggal yàggal leen fi. amiin ñu ñaan tamit ñu yokk ñaan si njëkk bi. Mhm. di ñaan di ñaan suma sëriñ sëriñ Abbas ibnu sëriñ Bass Anta Ñaŋ borom daaru yàlla yàggal ko fi bu baax a baax a baax suñu kanam di ziare ñëpp rek jërëjëf nañ baax si invitation bi jërëjëf waaw jërëjëf ndeysaan Tidiane fay kàddu yi am na solo ah suñu mbokk internet yi tey ndaanaan lañ fi dalal tey ndaanaan lañ fi dalal ndaanaan loo xam ne ni que def na lu ne ci làmb nee naa bii fu ñu tuddee fu ñu fu ñu tuddee Balla Gaye waroon na fekk fu ñu tuddee Balla Gaye wala Modou Lo teg ci Tidiane fay ndax lu mu deful ci làmb rek amul. waa pele bi tam nga baal ma tuuti. Mm-hmm. ñoom dañ may def circuit chaque jour. ndeysaan da ngay am combat ñu ñëw jënd jënd seen saako ceeb. jënd mm-hmm. duuli ndox mu bëri. dëgg la ñoo jàppale ma. dëgg la combat bi ak boo yee fu nekk yëpp. Mm-hmm. parce que dañoo génn massivement. dëgg la ñuy jënd ticket. mais Tidiane. ñuy jënd yëpp mais Tidiane yow lu la nit defal ci lu baax rek yaa ko ko ji tey ñi la dar ba ngay bëri ay xale yu ndaw la ñu woon. wallaay dëgg la sa jaar-jaar ak ñoom moo rafet moo tax foo mën a nekk dañ la fay fekk. ñun nag duñ def lu dul di la ñaanal yàlla rek yàlla mi nga xam ni que mooy borom doole mu delloo siwaat la ndax làmb daf la soxla te ndaanaan nga te nit ku baax nga. kon suñu mbokk internet yi duñu def lu dul di leen jaajëfal te di leen jox dig daje ba beneen yoon jërëjëf.